waa depuis xam nga contrairement à li dégg sànq d'ailleurs Pape di ko mhm. wax F24 mhm. dafa juddu ak quatre point c'est pas seulement le troisième mandat ah bah j'ai pas dit tout simplement dafa juddu ak quatre points mhm. et quatre point yooyu c'est que benn lañ ci amagum satisfaction mooy euh, le retrait en tout cas de la supposée troisième candidature bu président Macky Sall mu dese woon ñu ñetti point dont la libération des détenus politiques, des élections libres, transparentes et inclusives, mm -hmm. et euh, forcément, bien sûr, euh, que ñëpp ñi war a bokk bokk que le président arrête d'utiliser la justice pour nasaxal ay candidatures. donc ci loolu la ñu nekk et dans ce cadre-là bien sûr nous sommes en train de mener des actions ci action yooyu am na ñu rassemblement le 8 euh, demandé nañ fi nag plusieurs autres rassemblements. ñu refuser ko mm-hmm. mais euh, F24 moom dafa taxawee euh, li ñuy tuddee en tout cas la vérité mais dans la paix et jusque là à chaque fois que ñu demandé une euh, autorisation de manifester ñu lu ñu ko ñu def yeneen action bien sûr il arrivera un moment aussi où on sera obligé de dire stop parce que mënuñu itam nekk dans un état de droit mu am droit de manifester dans la constitution et à chaque fois bu ñu demander ñu ñu refuser ñu ko donc euh, on a d'autres actions mmh. au-delà de rassemblement mais le huit bii nii dañu woote rassemblement à la place de la nation suñ suñu teree manifestation le huit bi dangeen euh, am yeneen moyen pour euh, oui évidemment évidemment dinañ am yeneen moyens et à temps on le dira di ngeen si tënku est-ce que di ngeen si tënku par exemple su fekkee tere nañu en tout cas à temps on à on on le dira <laughs> présentement on peut pas dire ce faire mais ce qui est mooy ni que réfléchir nañu sur sur d'autres moyens